foogoon naa ne 500 sax duñ ko am waaye ci ndimbal euh, euh, bu baax boo xam ne Ousmane Noël Dieng am na ko pare na ne deux deux cent cinquante ministre ministre Diène Farba Sarr pare na cent association Kër Cheikh Mahamadou Hadi pare na cent Babacar Diame pare na cent ak yeneen yeneen vingt vingt yi nga xam ne ne am na ci ban dëgg-dëgg tey jotaay bi ubbeeku na ubbeeku boo xam ne ne loolu sant yàlla la xale fu ñu ko pare ne ci biir dëkk loolu tàmbaliment bu am solo la waaye nag ma xamal leen ne du ma fi yem képp koo xam ne ne yaa ngi ci biir Kaolack te Kaolack ñor la waxuma Kaolack sax waaye senegal képp ku ma xam ci ay nit ñu baax te xam naa bi ci dëkk bi ay nit ñu baax ñoo xam ne pare neen képp moo wax pour nga pare na xale rek di nga pare ne dalee ko ci Aliou Sall dalee ko ci ñoom Moon Njaay Rahma bëgguma tudd tur waaye ñoom ñëpp lii askan bi la jëm lii ci xale yi la dem تباي مودن وحنه إن مستقبل كل وطني إنما يتوقف على شبابه لا على كل شبان إنما على شباب نطقتنا ذوي الأخلاق الحميدة من أبني البوبل بونك مو يسكن لك شيء عندهم بعيد نو بونك نو بخم نديني أم كولتور دني أم خم خم دني أم جوب بعيد دني أم يتي نو لول نك بلين كوت تبخ فوق نيو تبخ كوت بير غيرام فوق نيو تبخ كوت سانتة نمينان يالا projet bi nga xamne ne tambali nako fi tay ci kër gan ñi ñaan yalla yalla na la ci bi senegal yépp lu ko

am jaamu dinañ ci am yàlla ba pare dinañ ci dimbali ñi nga xam ne su loo nañ ko lool lool lool. système parrainage bi entreprise yi Transvi di assuré dañuy ne man damay pare parrainé samay collègue pare parrainé samay mbokk dañuy pare parrainé sumay xarit dañuy parrainé loolu lañ ci indi bu ñu demee taal daara bu ne dinañ la yebal bu dee benn yoon ci at bi ay médecin ñu def consultation gratuite saytu xale yi jox leen ay garab faj leen bu ñu demee at ñu def rapport sinistre prime xool la ñu encaissé ci projet bi fii ci Kaolack ci pare yi ñaata lañ ci delloo ci këru docteur pour faj ndongo daara yi bu fekkee la ñu faj moo néew gën na néew néew na la ñu encaissé ñu jëlaat pàcc ci xaalis boobu defaat ko ci daara alxuraan yi fii ci kaw Kaolack mooy lan ci bien-être taalibe yi ci ay moustiquaire ci ay jumtuwaay yoo xam ne dana tax seen feebar euh, maanaam du du yomb trop ndax boo xoolee tey euh, bu ñëwee pare du nawet pali bi dafay doy waar ci daara alxuraan yi donc tey jël benn parti xaalis fexe daara yamay moustiquaire imprégné nekk ci salubrité boo xamante ne euh, am na solo dina tax xale yi sure sure feebar. loolu dafa soxla saabu doomam soxlaa rek nga taxaw. loolu moo waral tey euh, ñu ñëw ci ndigalu Cheikh Baye Adi si mi nga xam ne suñu buntu la ci mairie na Baye doon nit ku baax euh, ak directeur Abdou Diagne mi nga xam ne sama goro la dëgg yàlla di directeur Transvie. am initiative bu rafet def ko def choix wu Médina Baye comme ni mu ko waxee Médina Baye ku ne xam ne Médina Baye boo ne alxuraan boo ne taalibee boo ne lu baax fii nga koy fekk ma ñëw ànd seeg ñoom suñ ma waxee euh, man sama politique yëpp sociale la. sama politique yëpp def ci yàlla tax rek moo tax te tamit ñu def ci lu jéem ci loolu te pareeguñ si nag dañuy def loolu di si defaat ba ba keroog rek lépp di sotti incha allah rabbi